nguur gu bees gi fi nekk li mu bëgg moo di euh, média classique yi daal di dem daal di tëj seen i buntu tey bu ñu gisee dëgërante dëgërante bi nga xam ne mu ngi am seen diggante ñoom ak it ñi nga xam ne euh, ñoo di euh, média classique bi. waaw xam nga xam am solo mhm. mhm. boo xam ne ni bu ràññ. Mhm. su le président des patrons de presse. Mhm. moom aussi moo jàpp ni a une volonté manifeste de la presse classique pour créer une beneen configuration médiatique. Mhm. Babacar Fall aussi journaliste. Mhm. gis ko. léegi nag acteurs yi ñoom ñoo ko waxal seen bopp. là où je vous parle immédiat. risque de déposer clé. ah bon journaliste six mois. xaw ma ñaata mois fayuñu leen donc entreprise boobu mu ngi ci en voie de disparition. Mhm. léegi ñoom acteur presse yi. Mhm. dafa am loo am dañ ko ñeme. Mhm. mooy dafa am autres acteurs de presse. complices qui qui participent à ce que ñu ñu tuer l'acteur de yeneen acteur presse yi parce que. le Sénégal dafa divisé en deux cas les acteurs de presse du du projet. et les acteurs de projet yi ñu tuddee woon les acteurs de projet de l'ancien système. Mm-hmm. mooy ñi ñu tuddee ñoom presse système bi parce que pouvoir bu bees bi dafa ñëw ne dafa amoon presse système bi. Mm-hmm. bu ñu ibbiloon ay cabinet ñoom bi ñu yegsee ñu ne dañ koy tëj. Mm-hmm. ci biñ koy tëj nag ibilaat nañu créé waat nañu yeneen presse. dooleelaat yeneen presse. waaw léegi nag acteur presse yi il faut ñoom ci biir presse bi ñu créé presse presse ci seen biir. presse bi nga xam ne d'accordul ci ci ci ci ñu ci ni presse bi di teg ñële. xam nga journaliste yi seen xeex li tax man du ma ci sawar. mooy da ngay da ngay wax comme par exemple boo gisee ligne bi sans sans limite am ligne bi Seneweb am. Mhm. ligne bi yeneen site yi am. dee mhm. seen ko ci ñoo koy waxtaanee dañuy naan duñ ci wax. Mhm. léegi man duma ci wax. parce que acteur politique boo laalee fichier électoral ñëppay jógandoo. oui surtout. waaw léegi acteur presse yi parce que su presse su su ma su Ousmane Sonko wala le régime actuel réussiré. pour détruire la presse c'est parce que am na la complicité d'une partie de la presse. Ah, léegi bi la comme l'autre partie de la presse bi nga xamni ñom ñoom nañu ni sen kaw lañ jëm li état bi jëm daf leen bëgg effacer mais ça eux de s'armer de de de faire face. bien mhm. sûr bien sûr. Mhm. mais parmi eux daf ci am ño xamni dañuy wax ci kaw wax ci suuf. mo mhm. am ci des acteurs yo xamni aussi tamit dañu investir ci projet bi mais y avait les assises de la presse. oui où sont les acteurs qui le parlaient. pourtant y a des conclusions des assises de la presse. oui ana porteur d'assises yooyu. ana cap bi si amoon bi ñuy mhm. néewal doole journaliste yi mhm. Mhm. ana ana ana ñoom Domingo Mané ñu daan def ay lettre ay contribution mais ñu ñëpp a ngi fi lan nga gis kay mooy Mamadou Omar Ndiaye bi presse bi mobilisé woo te attaqué presse bi attaqué état bi ci journée presse moon Mamadou Omar Ndiaye daa xëy bind leen attaqué mort presse bi après il a été récompensé Eh, Momar Ndiongo dafa taxawon contre l'affaire mais il a été récompensé APS. Mhm. Sambou Biagi dafa nekkon di défendre projet bi nekkon ci acteur presse il a été récompensé maison de la presse. Mhm. Pape Alé Niang moo daan tax presse bi yëpp mobilisé wu. Mhm. il a été récompensé à la RTS. légui nak après xamulo liste général bi ñan ñoo ci jëm suba. légui lan la ana syndicat bi. parce que déggoo benn yoon fu ne la sendi simpic si taxaw na di défendre les intérêts de ses travailleurs uh-huh. parce que bu patron yi fayul impo. Uh-huh. fu jëm les conventions de des jeunes reporters uh-huh. ils tey le président recevoir dal ci seen kaw patron yi aujourd'hui leurs confrères ñu ngi am en difficulté salaire ils léegi en organisation yooyu ana organisation yooyu ana organisation syndicale yi. Mhm. léegi ñoom CDEPS si amoon nañ kuréel buy réunion. di waxtaan. ba mhm. pare ñoom ci seen biir nañu harmoniser wu ñu déggoo. Mhm. bokk intérêt xeex parce que da ngay toog Miss Maïmouna Ndour fay mu ne ñu gis nañ dégel ñu ngi félicité état bi ngoon Mamour Ibra Kane génn ne la loolu amul. oui en tout cas. c'est-à-dire c'est-à-dire le problème mooy le l'actuel régime. dañu am projet parce que dañ ko doon wax. Mhm. ne presse bi dafa bokkoon ci seen i adversaire dafa mhm. bokkoon ci seen i ennemi arrivé au pouvoir. Mhm. mais li ñu njëkk def mooy presse bi dañuy dañuy éliminer dañuy ciy jël dañuy dañuy néewal doole presse bi. ah léegi presse bi lan moo tax ñoom waruñu mën a boole seen doole. lu tax parce que ñoom bu ñu xëyee tey. ñoom seen biir ñu ne fii kenn du wax kenn du wax. parce que fii pouvoir yi fi jaar yëpp presse leen fi jàllale. oui surtout. waaw ah, le problème mooy presse problème mu presse du Sénégal c'est la presse. Mm-hmm. parce que qui peut ki bëgg ku bëgg rey ku bëgg éliminer presse bi. yaa mm-hmm. waa presse bi nga pour def ko mais vous politique seul mënul éliminer presse. Oui surtout. Mm-hmm. parce que Wade def na ko réussir ko. Macky Sall def na ko réussir ko. ouais euh, Abdou Diouf bi def na ko mais réussir ko. mais phase fi ni toll moi nag. mooy dafa am lu bees lu tudd journaliste du projet. les médias du projet ces médias du projet nak gëm projet bi participer ci ak ces journalistes yi nga xam ay acteurs lañu ñu ñu récompenser leen mhm. ñi fi dess ñom Babacar Fall ak ñom Mamadou Ibra dañ kay ñëmé dañuy ñëmé xex bi ñu taxaw wax ak ñom pourquoi ngeen jox wal fa publicité jox leen convention pourquoi ngeen ibbil ñuy convention joxoo leen ñu oui surtout te ñenn ci ñom dag nañ seen ay contrat de publicité. waaw léegi mhm. bu ñu daggee seen contrat lu leen téré ñu ne leen contrat dina lutax ngeen jox diw ak diw. Mhm. non nañ ko génn ñu wax ko pour bu pourtant buñ jégee buñ jàppee benn nit. Mhm. wala ñu yóbbu ko dig wala ñu def ko dara presque day def bind ko. daan ne kii transhumé na kii def na leneen. Mhm. mais ñu jóge ci seen combat boobu ñu nekk. Mhm. parce que c'est parce que ñoom ñëpp aussi tamit kiliñu ñu à cent pour cent. parce que bu c'est ça c'est un combat. daf leen koy jaramal l'affaire immédiat daf maa métti. mais immédiat du du société civile. parti presse la. am na ay kuréel yu fi nekkal presse bi man l' affaire des assises des médias bi ñu jël sànni ko. tey pouvoir bi bi muy yegg si dafa Macky Sall moo ne woon nañ def assises indil ko mu jël conclusion yi. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi après conclusion yi bi ñu paree ñoom ñii bi ñu yegg ñëw fële lañ sànni conclusion yi. ba pare daal di nommé service état bi amoon yëpp soleil seen militant moo fa nekk. PCA soleil seen militant moo fa nekk. ils ont repris tout. léegi presse bi yëpp commencé taxaw koo waxal mu ne non sama doyen la sama confrère la non diw ñeme mu ko wax dara ñu ñeme kon nag mieux vaut ñu teg xeex bi ci suuf. ñu xeex parce que duñ leen ko xeexal. surtout parce que problème bi du externe dafa am une partie de la de la presse yoo xam dañuy mhm. défendre projet bi. Mhm. dañuy défendre ñi fi nekk tuddee leen ñoom presse su système. Mhm. donc c'est au presse du système. ñi ñu ñi ñu tuddee presse su système ñooy jàkkaarloog presse projet bi ñu xeex xeex bi ñu xool kan mooy gagné. en tout cas euh, merci beaucoup Abou ñu ngi lay jaajëfal bu baax merci. merci.